jàmm suñu stabilité ak li xew fan yi te may laaj ñu koy jàngat ak sérénité euh, gis ngeen fan yi ñoo xam ne euh, ñun dem nañ fi ay élection ñu def def ñu fi ay tuuma yu garaaw d'abord jéem a présenter régime Macky Sall ak président Macky Sall comme ki nga xam ne moo fi toogal France fan yi gis nga France à tous les niveaux ni mu taxawee ci wàllu président Macky Sall may laaj sénégalais ñu def ci point d'interrogation bu rëy lu ko waral gis nga ay réew ay États-Unis ak yooyu seen ambassade bi fii donc bon parce que il faut ñu commencer wax yi fi yoo xam ne daf euh, moo raw sax taxawaayu ONG bis bu yàlla sàkk ci ay tweet dans la même journée ambassade boo xam ne mën na génn ñaari ñetti tweet yoo xam ne jàpp naa ni euh, mu ngi xaw a génn gaam pour wax ni xale yi. mais ils sont dans leur rôle. Ah non c'est pas leur rôle c'est une représentation euh, diplomatique qui est c'est son rôle c'est pas de s'immiscer dans les affaires intérieures mais du Sénégal mais communauté internationale bi dafa am droit de regard. Euh, euh, ci ni ñuy doxalee ci ñu ñuy yolee nguur yi. bu fekkee ne ma leen jox droit bi yow. <coughs> ma ne CEDEAO. non CEDEAO nga xam on est membre. non waaw d'accord. on est membre d'accord communauté internationale bi dans son ensemble. non a. Euh, la France que ñun. France CEDEAO les États-Unis ah. ay partenaires lañu. droit bi. <coughs> Macky Sall amoon ba avec CEDEAO hmm. ñu dem intervenir. mais <coughs> en mais mais mais. Macky Sall dafa def loolu. en <coughs> tant que membre dafa dafa nekk membre. non ñu dem e intervenir en Gambie. pour rétablir l'ordre pour éviter. avec un putsch, pour éviter un putsch électoral avec un mandat. pour éviter un putsch électoral. aussi bien la CEDEAO de l'ONU. mais droit boobu la ONU am. non ko ma ONU encore une fois. pour pour jeter pour analyser la situation. droit boobu la yeneen ak yeneen réew am. pour wax ci pour inviter le Sénégal. est-ce que euh, États-Unis mooy à à États-Unis mooy ONU. non. mais man foofu laa tàmbalee waxaguma ba léegi ONU. da ne CEDEAO dama la ne Sénégal membre la Macky Sall bi mu koy def en tant que membre de la CEDEAO euh, bu yor mandat aussi bien de la CEDEAO et que de l'ONU muy benn ñaareel bi c'est en euh, parlant du respect de convention de euh, de de euh, de disposition xam ne réew yooyu ñoo ko seq signé ko d'accord ci man maa ngi lay wax ci émission boo xam ne tey dama naan sénégalais buñ ko daw wax jooju yow mi taskatu xibaar bu ko daw nanga ko seetlu nanga ko seet na ko càmbar lu waral subitement aujourd'hui yenn organ de presse étranger yi quasiment ci Sénégal la ñuy xëy ci la ñuy gont mais ñun ñoo prêter le flanc ñun ñan. ñun ñoo traité Sénégal les autorités sénégalaises ñoo prêté le flanc. non xam nga bu euh, bàyyi leen di jël de raccourcis. Euh, li ma la wax nii c'est un problème de citoyen de citoyenneté non waxuma ñu dama ne. ñu wax posez-vous la question du pourquoi. ki nga xam ne yow da nga dem élection même da nga dañu dem élection yu weesu campagne bi dafa porté woon ci ay thèmes. thèmes yooyu moo doon que ni un nguur gi dafa nekkal ay intérêt étranger ñi ñu doon lim ñooy suñu premier adversaire tey ci li ñu taxaw nii benn ñaare bi ñu ne nguur gi dafay bëgg a défendre yenn xeetu valeurs yi mu dëppool ak suñuy valeur te seetlu nañ ni tey lobby yooyu ñoo nekk euh, ci organe de presse yi nga bëgg wax naan ay ñoo prêter le vent yéen xam ngeen yan lobby ñoo nekk seen gannaaw <coughs> donc loolu lépp dama ne da nga ne dañ dugg ci crise dama ne bu ñu et man à cela que j'invite bet xaaral xaaral xaaral man ci loolu laa lay invité yow en tant que sénégalais citoyenne pas yor sa organe bëgg peut-être voilà mais en tant que citoyenne man en tant que citoyen ñun sénégalais li ñu li ñu baaxoo li baax ci ñun ak fi ñu jëm mooy que ñu bañ a jël la crise comme une fatalité ñun li ñu baaxoo mooy li mu wax il y deux trois jours mooy que paix durable bi fii ci réew mi mooy suñu mooy li baax ci ñun moom la suñu kilifa yi woote moom la ñëpp woote képp koo xam ne tey tu es doué de raison dans ce pays ça fait des jours ci loolu nga taxaw président la république li mu woote mooy balaa ñuy dem ci loo xam ne ay justement ay crise yoo xam ne mën nañu yóbbu fu ñu maîtriser wul nañu toog waxtaan xool nan lañ koy defee